ahousubillahi mina seytaani rajimi bisimillahi rahmaani rahimi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli conantam ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fooy mën a nekk ñoo leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen rawatina yéen ñu abale fii ci Daaru Salaam si baaw ñoo ngi leen ziar baax di leen ñaanal xéwal yaatu nag defaraat nag àlaxira kon baat bi ngeen di gis moo gën a guddi ci alxuraan baat bi gën a guddi ci mooy baat bi baat bi nag ñi ngi ko ñu ngi tudd la taxli yastaxlifannahum la yastaxlifannahum mooy baat bi baat bi nag li muy dox bari na lool ci li muy dox bari na lool dana noob baat bi dana toj liggéey baat bi tamit dana may xéewal ci li muy dox bari na waaye tey daal maa ngi ci wax ci lu jëm ci wàllu toj liggéey yow mi nga xam ne dangaa njort ne sa yaram daa amee liggéey yow mi nga xam ne dangaa jàpp ne dañ la liggéey sa xel mi ne ci walla nga dañ la ko def bindal baat bi baat bi nag yaa ngi koy bind cent onze fois bu dee nii ma ko bind nga koy bind cent onze mooy xut bi mooy kaaf yi cent onze nag boo ko déggee mooy xut bi mooy kaaf yi lim bu am solo la bind ko téeméeri yoon ak fukk ak benn nga koy bind laaj sax li fa noonu boo ko bindee téeméeri yoon ak fukk ak benn dangay dem nga wut xasum xay xasum xay baax na boo amee juróom-ñaari xas yu bokk nag moo ci gën juróom-ñaari xasi garab yu bokkul yooyu xay moo ci gën gën a baax dajaa gën a baax rek waaye baax na boo amee même boo amee garab gu bokk sax baax na waaye amal xasum xay rek amal xasum xay moom am baax na nga wut xasum xay bu bari nga def ko ca nga di ko sangoo yaa ngi koy sangoo nag mën nga koy sangoo nag juróom-ñaari fan baax na ñetti fan baax na loo ci neex nga jël juróom-ñaari fan baax na ñetti fan baax waaye boo rombee ñetti fan yow demal juróom-ñaari fan boo mën tàgg ñetti fan na juróom-ñaari yi yemal ñetti fan yi ci ñaari lim yooyu waaw boo ko defee daal ci kàttan suñu borom ko wa taala bu dee liggéey moo ne ci yaram booba wala ku ñu jibar wala ku ñu def dara lu bari sa wàllu yaram loolu mën na ko dindi. mooy layas saxali fanam moom ngay bind téeméer yoon ak fukk ak benn nga wut xasam xay nga boole ko moom nga di ko sangoo ci kàttan suñu borom tabaaraka wa taala dana toj liggéey wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu